mais beneen bi moom mooy li nga xamante ne mooy euh, yeneen yi mooy euh, website yi yi ñëw bees nouvelle technologie yi tey am nañ ay page Facebook yoo xamante ne ci réseaux sociaux yi ñoo ëpp doole ëpp impact bu baax a baax li nga xamante ne moom mooy média classique yi et en même temps ce sont des gens yoo xamante ne c'est des journalistes ñoom ñoo fay liggéey c'est-à-dire donc c'est des gens du métier ñoom ñoo fay liggéey les gens de la corporation ñoom ñoo fay liggéey li nga xamante ne moo di déontologie të euh, tënk leen nga xam moo di code de conduite presse itam tënk leen mais bu fekkee ni euh, harmonisation jot na au moment où CNRA par exemple euh, def na communiqué euh, décembre bi passé di dànkaafu ñi nga xamante ni bon c'était même pas encore dànkaafu mais rappel à l'ordre la des dispositions yi nga xamante ni moom mooy code pénal li mu wax ci couverture bi mooy notion équité ak équilibre bi article euh, euh, moom mooy article 61 du du code du code électoral donc ñoom biñ koy wax période bi ñu koy wax les uns sont tenus de respecter alors que ñi nga xamante ne moom mooy réseaux sociaux yi médias yu bees yi ce que j'appelle les nouveaux médias eh, ils étaient pas tenus de respecter et malheureusement de décembre à maintenant ñëpp gis nañ ko c'est vrai que médias classiques yi am na ñoo xamante ne euh, comme CNRA ni mu ko waxee euh, dans son dans dans un communiqué d'évaluation euh, bi génn le 26 décembre lu ñu wax mooy le ñi ci gën a bëri respecté nañ ko mais am na ñoo xamante ne respecté wuñ ko parce que ci diggante bi il y eu yoo xamante ne ay événements yu majeurs yoo xamante ni certains médias ils ont fait fii des directive de la de la de, euh, du du CNRA plutôt ba pare ñoom ñu ñëw ñu couvrir événement politique boo xamante ni période pré campagne bi c'était pas c'était pas autorisé donc mm, dafa di loo xamante ne logique commerciale bu taxawee ak itam li nga xamante ne moom mooy règlement bi. ak régulateur bi li nga xamante ne moom moom la waaj donc dilemme bi c'est à deux niveaux mooy la logique commerciale moom mooy un bi deux bi itam moom mooy les nouveaux médias yi nga xamante ni quoi qu'on puisse dire. mais dans ce cas des sanctions quand même ont été prévues. waaw des sanctions ont été prévues euh, au niveau du régulateur régulateur bi ci ñan la mën a sanctionner ñu mën a sanctionner mooy rajo ak télé. ñu mu mën a sanctionné waaw maintenant waaw mais mais média en ligne bi bon euh, c'est vrai que avec euh, code de la presse gars yi gën nañ ko xaw yaatal jéem a xool nan lañ ko na nan lañ ko kiiwee mais tey tey tey tey CNRA euh, lan la mën a imposer un média boo xamante ni euh, c'est l'un des premiers médias en Afrique mais fekk boo xamante ni c'est un média ci ci ci ci internet bi la nekk ay médias yoo xamante ni il y aussi la territorialité aussi du du régulateur un média qui est basé par exemple aux États-Unis mais un média sénégalais basé aux États-Unis ou bien basé en France qui qui véhicule des informations nekk ci dynamique li nga xamante ne moom mooy traitement information ak di ko joxe nekk donc nekk ci écosystème acteur bi am na possibilité intervenir ci li nga xamante ne moom mooy li muy def d'autant plus que ci interne ci internet bi léegi donc da di ay euh, limite yoo xamante ne pour le moment comme je disais à l'entame de mes propos mooy dafa am défasage entre la réalité du terrain et de l'écosystème en tant que mais itam ak li nga xamante ni moom moo di moom moo di les textes mais dans tous les cas Euh, li nga xamante ne mooy li ñu gën a ragal parce que la particularité des élections euh, euh, locales territoriales comme ni ñu ko waxee la dernière fois élections territoriales yi lan mooy seen particularité mooy harmonisation bi mooy poser problème profil yi et tout par exemple si on était en présidentielle si on était en présidentielle CNRA am na lu ñu prévoir mën nañ ne chaque candidat Euh, chain publique bi. ngeen di ngeen di dem di nga am créneau ñoom ñëpp ñooy bokk même créneau ñoom ñooy bokk même temps d'antenne lu ci manqué ñu ñu kii ko ñu ñu ñu ñu mottali ko et en même temps ñu am heure boo xamante ni ñoom ñëpp ay demandoo ainsi de suite donc loolu c'était calibré mais aujourd'hui avec 2000 listes. donc 2000 têtes de liste ak le problème itam de la territorialité de l'information loolu itam ça pose un problème pour nga couvrir ces ces ces ces élections donc li ñu mën a def mooy comme ni CNRA def au mois de décembre mooy génne euh, euh, euh, mise en garde ou bien déjà ak rappel bi wax ni ah lii mooy principe yi les principes c'est ça donc selon notion équité ak équilibre bi nga xamante ne wax nañ ko ci article 61 du code du du code électoral que effectivement presse bi war na def lii war na def li wala mais ci généralité yooyu la mën a yem mais tey bu ñu duggee ci biir campagne notion équilibre ak équité boobu noonu day poser problème parce que ce qui est sûr mooy déjà dañ koy gis sax mooy hmm. yenn public reportage yi nga xam ne ñu ngi koy def foofu dalee leer ni c'est l'effet plutôt commercial hmm. qui va agir le plus sur li nga xamante ni moom moo di peut-être l'harmonisation bi ñu bëgg a hmm. euh, la presse et surtout yi nga xam moom moo di sorti yenn candidats yi parce que c'est sûr que les les jeunes candidats ak ñi nga xamante ni seen moyen peut-être demeewul noonu ñoom il n'aura euh, seen traitement bi en tout cas du nekkee carrément en leur logique commerciale bi dafa impo mooy li ma wax déphasage gis nga tey bu ñu amoon tey euh, ci li nga xamante ne bu ñu amoon ci code publicité bi ñuy wax ak yooyu noonu bu ñu amoon tey loo xamante ne lu leer la ñu voté ko genre publi reportage yi ngay wax noonu mënoon nañ ko normer de telle sorte que en période de pré-campagne ou bien en campagne ñu ni par exemple tout ce qui est lié à la politique ou bien lié à un candidat nii ak nii lay demee télé bu ko mën a respecter wala média de respecté lii la boo ko respecté wul lii mooy daan mais tey logique commerciale bi dafa dem de telle sorte que côté boobu noonu ku def public reportage est-ce que yow CNRA mën na ko sanctionner wala keneen mën na ko sanctionner j'en doute mais dafa di am loo xamante ni dafay créer mooy équité bi du am tey Modou Khoule bi nga xamante ne mi ngi nekk mbëlëxe par exemple war a am cette visibilité médiatique boo xamante ne pour parler euh, de son programme ainsi de suite mais amul moyen mais au même moment il y a un député maire dans la même zone bo xamante ne il peut mobiliser média local bi et en même temps mu mobiliser média média euh, national bi pour faire passer un message donc kooku il a il est plus avantagé il est plus avantagé que par rapport ak ki nga xamante ne amu ko donc moom da di particularité élection bii nga xamante ne moom mooy élection territoriale yi je je parlais tout à l'heure de 2000 listes mais même pour média bi en tant que tel tey aujourd'hui si la 2S voulait couvrir voulait voulait respecter notion équité ak équilibre boobu noonu ci candidat yi on n'a pas le temps ni les moyens de couvrir 2000 listes donc là c' est un c' est un problème maintenant pouvoir public bi lan la ci mën a def ba nga xamante ne de tell sorte que ne mën na accompagner média bi c' est une chose. accompagnement bi mën na nekk loolu piste de réflexion la mais itam le plus simple pour moi à mon avis d' après expérience bi ma am ci couverture élection yi le plus simple mooy li nga xamante ne mooy aspect législatif aspect législatif mooy defar texte yoo xamante ne bu. période période période pré campagne amee ñu xam nii lañ koy gérer période euh, euh, pendant campagne nii lañ koy gérer s'il faut une discrimination positive yoo xamante ne par rapport ak yenn candidats yi la ñu mën ko opérer au moment de de li nga xamante ne moo di pré campagne parce que loolu euh, réflexion la boo xamante ne ci campagne bi ni laa ko gis période pré campagne j'ai vu que am nañ médias yi offrir nañ opportunité yu bëri ñi nga xamante ne moom mooy candidat yi entre guillemets candidat yi nga xamante ne amuñu visibilité nationale bi mhm. am na ñoo xamante ne ñuy ñëw de euh, euh, ils ont ils fait des pieds des mains pour ñëw ci sa émission parce que fi ñu nekk euh, bu ñu la waxoon dëkk boobu sax yow doo xam ban dëkk la mais au moins période pré campagne bi médias yi duggoon nañ ci benn dynamique avant la sortie de de de CNRA duggoon nañ ci benn dynamique boo xamante ne Euh, euh, une offre beaucoup plus large en matière de de de de, de politique yoo xamante ni daawoon nañ gis ay liste yoo xamante ni euh, ay dëkk yu sori la ay liste yoo xamante ni leer nañu bu campagne bi démarré du ñu leen di dégg parce que am na ñoo xamante ni seen puissance communication ak seen puissance moyen daf leen di noyé en tant que tel mais malheureusement CNRA bi mu génnee bi mu waxee on fait plus ça parce que lii ak lii loolu mooy principe bi tey ce qui euh, ce constat bi ma def bi sur l'ensemble des médias nag mooy ñi gën a perte mooy les petits candidats euh, yi nga xamante ni ñoom ñoo engagé wu. Euh, mais quand même très méconnu de de la scène. politique euh, politique. Hmm. mais li nga xam ne moo di chaîne nationale. Hmm. la la RTS. Hmm. moom ban c'est-à-dire bu bu nekkee déjà li nga xam ne moom moo di yooyu les directives jub na ba pare. Hmm. moom est-ce que daf ci am benn wàll boo xamante ne dañ naan moom moo war a gën a nekk koo xamante ni moom mooy euh, favoriser ses candidats wala moom moo war a gën a en tout cas euh, respect pas respecter mais joxe plus de chance. Hmm. Euh, aux candidats et prôner beaucoup plus à l'équilibre par rapport au autres médias surtout privés. yi nga xamante ne ngi fi. mission première euh, li nga xamante ni moom mooy chaîne publique loolu mooy loolu moo war a nekk seen mission seen mission première euh, et c'est dommage euh, bu fekkee élection présidentielle c'est des milliards la ñuy la leen di eh, pouvoir bi di jox en terme de moyens pour couverture campagne bi et et tey élection bi nga xamante ne moom moo ëpp nit ñu engagé wu parce que on parle de deux mille de deux mille listes déjà donc malheureusement jusqu'à présent euh, suñu chaîne publique bi rajo comme télé en ah, donc gisuma ci effort yi nga xamante ne def nañ ko donte ne ñoom la war loolu moo war a gën a nekk seen mission tey waroon nañ am créneau boo xamante ne ou bien ñoom ñu def de telle sort que parce qu'ils ont cette possibilité du maillage du territoire ils ont des antennes yi nga xamante ne ay euh, chaque région am nañ fa antenne donc war nañ mën a def de telle sorte que ne mën ñu mën a promouvoir li nga xamante ne moom mooy notion équité équité boobu ak équilibre ci processus électoral mais malheureusement ce qu'on voit c'est autre chose parce que bu fekkee ni euh, CNRA génnee na directive wax li muy wax rappeler les principes li nga mooy code code électoral bi li mu wax euh, le président de la république moom moo njëkk a nekk en mode campagne et malheureusement c'est toujours avec les moyens de de de la chaîne publique bu ñu gisee les euh, euh, kii yu muy def inauguration yu muy def yi un focus est fait carrément ci li nga xamante ni moom mooy les maires yi nga xamante ni ñoom ñoo nekk en compétition am coloration jege président bi su ñu jëlee le port de Ndayane on a pris euh, ñi nga xamante ni ay maires lañ nekk dans la zone et puis c'est des maires yoo xamant ni ils sont ils sont du côté du sont amal poorum Ndayane dafa am impact ci territoire ci territoire Ndayane c'est-à-dire boobu noonu yëpp dafa am impact ci ñoom donc au lieu aussi bi ñu joxee maire yeeg yooyu noonu ñu wax ak ñi nga xamante ne ils son proches du pouvoir mais ils sont en campagne aussi en pré-campagne ñu wax ba pare ça aurait été euh, intéressant ñu jox ñi nga xamante ne moom mooy les candidats euh, ci localité yooyu noonu ñoom ñu wax nan la ñu gisee nan la ñu gisee port bi parce que aujourd'hui bu yàlla defee ñoom ñu gagné ils vont hériter de ce projet là et c'est boo xamante ne état moo ko porté que soit Alpha il faut une collaboration entre les deux entités ça serait intéressant que genre situation yooyu noonu ñu jox les aspirants à, à, à, euh, aux ñu jox leen cette opportunité la ñoom itam ñu wax seen seen seen avis mais boo xoolee dans la couverture euh, quand euh, les plans larges bu ñuy jël pour montrer la foule c'est je suis avec le maire de diw euh, parti diw moo def nii benn bokk yaakaar avec ainsi de suite donc là aussi c'est li nga xamante ni la ci moment pré campagne bi nga xamante euh, dispositions yi nga xamante ne moom la euh, code électoral bi prévoir. Et, et maintenant euh, est-ce qu'on peut s'attendre à des à des sanctions yu tegu c'est-à-dire foofu parce que ñëpp xam nañu RTS à chaque fois mm-hmm. on parle de de de ce manque d'équilibre bi nga xamante ne mi ngi am c'est très rare ngay gis des opposants yoo xamante ne mm-hmm. foofu lañ leen di joxee kàddu ñu wax mais euh, en réalité et en principe qu'est-ce qui devrait être li nga xamante moom moo di